coalition taxawu Dakar ci suñu ndaje bi ñu amoon tey ci lundi 25 octobre 2021 ginnaaw ba ñu waxtaanee ci situation politique bi nga xam ni daf ñuy conduire ci élection locale yi ñu jëm 23 janvier 2022 ginnaaw ba ñu saytoo circulaire numéro 7 du 22 octobre 2021 bi nga xam ni mooy tënk dépôt dossier candidature yi le 16 octobre 2021 à 16h ginnaaw ba ñu saytoo procès verbal commission départementale d' investiture du 23 octobre 2021 bi wax ci gëstu candidat wu yi te muy confirmer candidature suñu camarade Barthélémy Diaz ñuy wax ni ñoo ngi dëggal di jàppale di taxawal candidature suñu camarade Barthélémy Diaz comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar kon da ngeen may ma ma njëkk gërëm sant suma mbokk bu ma bokkal coalition taxawu Sénégal mu nekk euh, coalition bu suñu kilifa di jiite di Khalifa Ababacar Sall wax naa ko nee naa lii du conférence de presse waa taxawu Dakar ci seen mbaaxaay ci seen cofeel ci seen pas-pas ci seen Pastef ñoo taxaw nekk lu jot jot na mooy jóg biiralaat lu ñu waxoon parce que lu ñu waxoon mooy ñun dañu dañuy candidat ci mairie de Dakar kooku tey waa taxawu Dakar dañ ko biiralaat fii ci seen résolution bi maa ngi ci gërëm dañuy sant ñu wax waxaat nekk ñoom ñoo déposé depuis le 13 octobre seen candidature candidature boobu nag man maa koy porté man Barthélémy Dias déposé nañ ko nag fu ñu ko naroon déposé mooy ci commission Yewwi Askan Wi bu département de Dakar monsieur Diakhaté bokk ci grand parti moo koy jiite euh, lu waral lii ñëpp xam nañ ko parce que wax dëgg yàlla ku toog tey nekk taxawu Dakar tànnuñu euh, candidat kooku peut-être ñu koy wax ñoom la engagé wante ñun waa taxawu Dakar biiral nañ ko tey fësal nañ ko tey dañu déclaré suñu candidature fu ñu ko naroon déclaré parce que ñun wax dëgg yàlla taxawu Dakar dafa bokk tey ci beneen coalition coalition boobu moom la charte Yewwi Askan Wi jox sañ-sañ bu mën a recevoir ay candidature donc je pense que loolu tout de même xel mën na ko nangu te nopp mën na ko dégg fu may daanelee nag mooy ñu ngi tàllal suñu loxo yi ñu bépp góor bépp jigéen bépp mag bépp ndaw bu ànd ak ñun ci coalition taxawu Dakar tàllal tamit suñu loxo suñu mbokk yi ngeen xam ne ni ñoom ak ñun ñoo bokk suñu coalition Yewwi Askan Wi politique fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mooy xëccoo wala parparloo wante loolu mbiru àdduna la wante nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci yaakaar bu askan bi teg ci coalition Yewwi Askan Wi te coalition bi nañu bàyyi xel ci turam ñun ñoo wootee yeewi askan wi wooteewuñu fii noot askan wi wootewuñu fi nax askan wi wootewuñu fii leneen ginnaaw yeewi askan bi kon ñun ñoo noonu wane le bon exemple moo tax au-delà des remerciements ñu ngi tàllal suñu loxo bépp acteur politique bépp responsable bépp militant bépp sympathisant bu bokk taxawu Dakar wala bu bokk yeewi askan wi ñu bokk nday bokk bàyyi mën a waxtaanee lu askan bi namm ci ñun te kooku wax dëgg yàlla je pense que amul leneen lu ñu mën a xaar ci ay responsables yu toll nii ñun ñii parce que nous sommes tout de même des responsables qui aspirons à diriger ce pays donc xajuñu ci xuloo xajuñu ci xëccoo xajuñu ci yenn ñaawte fi di gërëm ñëpp